ok sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mu ngi lay nuyu bu baax dégg nga waxtaan wu am solo bi nga xamante ni Serigne si la def na ko mu jëm ci yenent bi sallallahu alayhi ak ni mu nekkee woon ak ñi nga xam ne wuute nañoo xalaat euh, euh, ci wàllu diine wala ci wàllu gis-gis mu thème bu am solo boo xamante ni at mu jot danañ ko tànn waaye yow laaj bi ñu lay jagleel rek xam naa ne xat nga waxtu wi kii na mais lu waral ngeen tànn thème waaw euh, xam nga niñ ñu ko doon waxee rek ci waxtaan yi waxtaan yi weesu maanaam gis nañ ne maanaam dañuy jàng barsan ak gis moom mooy mu xadim tey jikko yonent ne euh, fi nekk nii jaaru na ci jamono ji ñu toll euh, ñu ngi jëm ci ay xew-xew yi am ci kanam te yonent bi mooy suñu roy su fekkee ne. xëccal mu sos xëccal mu xamal ne sos mais. mën na daan diggante ak ñu wuute ko. xam ne farata lay doon ci waxtu yi ndax am solo lay doon ci jamono ji rawatina déwén. kon xam naa ne ñu ngi lay wax ñu war a tàmm ci kàttan bi tuuti te ci ñi ko organisé sa bopp kon lan la laaj rek yow nga doxal ba ci kanam incha allah. waxtaan wi nga xam ne moom lañu doon lay taalee guddi gàmm gi mooy doog jeex nii ñu ci doon waxtaanee tomb bu am solo ndax xam ngeen ne gàmm itam wone jikko yonent bi salaay salaam la ak ay jaar-jaaram ngir ñu mën cee jëlee ay bind xëy na jikko yonent bi yëpp sax mënee si ko waxtaanee ci génn guddi waaye dana laaj. ñu tànn ci euh, benn tomb boo xam ne mënees na koy yóbbaloo loolu bu ñu ko dee def bu yàggee rek euh, jikko yi yëpp yi ci ëpp danañ ko danañ ko mën a pekk ren nag ñu tànnoon tomb boo xam ne bu am solo la mooy yonent bi ni mu daan ni mu daan jëflante ak ñi nga xamante ni ñoom la wutee loon xalaat moo xam ci wàllu diine wala ci gis ngeen Serigne Mourtada Sylla gën joxe na ci ay exemples yu bari waaye ñu taxaw ak koo xamante ni itam euh, borom xam-xam la di gëstukat di imam di di di di kàngam ci yoonu murit muy Serigne Mountakha Diatara bokk ci membre yi day raw Rayaahiin di mboolam xam-xam borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi denk lépp lu aju ci wàllu xam-xam ci ci ci dëkk bi euh, ñu taxaw ak moom euh, sëriñ Mountakha ginnaaw bi ñu la nuyoo dégg nga tomb bu am solo bi nga xamante ni moom la sëriñ Mourtada si la doon waxtaane tey mu yonent bi salaay salaam ni mu daan jëflante ak ñi nga xamante ni ñoom la wuute leen xalaat yaakaar naa tomb boobu bu ñu ko tànnee ci contexte bii ñu nekk nag ci jamono ji ci Sénégal yaakaar naa bu ko gën a farata amul ndax gis nañ coow yi fi am ci wàllu euh, xëccoo ci wàllu diine ci wàllu tarixa waaye itam ci wàllu doxalinu réew mi politique ba mu ay njombe yu baree baree bari kon yaakaar naa buñ ko tànnee tey bokk na ci tomb yi nga xamante ni yi ëpp solo la loolu ci mën a loolu ci mën a jàngatal ci tomb waaw jërëjëf sëñ Ablaye ñu ngi nuyu mbokk yëpp te di leen eh, ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne ci ay citoyens yëpp ak ci biir réew mi nag kon jëflante ba tam day doon jëflante boo xam ne dañ koy teg ci jëflante kenn ku nekk jàpp na sa morom citoyen la am na àq ji nga am ji nga àq ji nga am ci réew mi moom la am ci réew mi loolu nag mënta am lu dul dañoo déggoo ci ay mbir dañoo déggoo déggoo ci ay mbir te déggoo yooyee l'islam dàq ko mosu ko dàq li ñuy wax naan lis dialogue dialogue islamo chrétien loolu ñi koy wax dañoo xamut ndax lislaam ba mu ba mu amee loolu dafay yàgg ba mu sosoo rek la judduwaale loolu lislaam ba mu sosoo rek la juddoo dialogue waaw man yoon bi def na ko ci Makka ba ba ba ñëwagul Madina def na ko Madina ba bi fi jógee saxaaba yi ak ñi ci topp ñëpp mhm. kenn ku nekk jolof boobu dañ cee ma sa nekk mhm. kenn mosu cee jóg mhm. kon bu buñu demee ba jamono ñu defee day door a xew ñu di ko waxtaanee loolu ñàkk a xam diine la ñàkk xam lislaam la loolu li muy li muy li muy li muy tekki mooy euh, euh, euh, buñ ko wàccee ci suuf buñ ko wàccee ba wàcce ko ci Cheikh ba Bamba mi nga xam ne moo moo roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci léppam day gën a leer ndax ñun moom lañ moom lañ fekke moom lañ fekke jamonoom wala wala lu ëpp ci jamono moom lañ fekke ba tey kon dañuy xool ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dox am na fu mu ko jëmal waaw waaw am na fu mu ko jëmal mhm. ku ne xam na digganteem ak i noonam mhm. ku ne xam na digganteem ak ànd ak ak ñi dajaloon jamono mhm. ku ne xam na lañ ko lañ ko teg ci ay nattu ku ne xam na loolu lépp xam nga waaye gis nga lam def ba mu ñëwee def ne afawutu anil aadaay jéggal naa noonu yëpp jégal naa noonu yëpp la wax afa li wa ci man anhu afa ankum afa ngir yàlla mi ma jégal man yàlla laa seet ba jégal leen yéen ndax yàlla man man man dafa maa jégal man kon war na maa seet man li ma defal ma defal leen ko yéen tam kon loolu lépp ay exemple yoo xam ne li am solo nag mooy ñu jël exemple yooyu nag bañ koo waxtaanee rek ci guddi euh, euh, gàmmu mu jàll ñu ne jàll na waaye ay bind la yoo xam ne dañ ko war di jël di ko jëfandikoo ci suñu dund suñu réew mi ñu nekk toll na foo xam ne ci ak waroo toll na foo xam ne ci ak juyoo ci yu bare bare yoo xam ne sax gën naa néew ya ya doxoon diggante yonent bi ak ak i noonam gën na koo néew waaye teewut mu indi ci ñoon ak juyoo li war a am kon mooy ñun ñëpp ñuy jàngat bind yu mel nii yaatal suñuy dënn yaatal suñuy dënd ci wàllu diine ñi ngi ci wuteel yaatal suñuy dënd ci wàllu tareexa ñi ngi ci wuuteel yaatal suñuy dënd ci wàllu même politique ñi ci wuuteel kenn ku ne jàpp ne sa morom ni nga amee droit ci gëm dara nekk ci jàpp ko noonu la sa morom amee droit ci gëm dara jàpp ko waaw ah, surtout sëñ Muntaxa ci loolu ci gis-gisu politique waaw waaw xam nga ne bu ñu wuutee ci wàllu idéologie politique mhm. ci wàllu doxalin mhm. ci wàllu ni ñuy bëgg a réew mi mhm. loolu ndax war naa jur ñuy juyoo ba àgg ci ay rey ay bakkan wala ay ay yàq yàq ci ay alal ci loo xam ne ñun ñoo bokk réew mi waaw loolu sëñ loolu loolu xam nga ne euh, mbirum politique la comme mbirum adduna la waaye c'est yi tere waxuma laa ci mbirum politique ndax mbirum politique moom mbirum adduna la rek dëgg la diine ngi ci waaye mbirum adduna maanaam ci mbirum adduna jii ñu sëq la kon sekam yonent bi di ak diine ni mu amee solo ak pas-pas bu rafet bii waxuma laa ki nga wuuteel politique ko war a diine bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne yonent sax la doon ñoom ñun ñi ay julli na kon naka noonu ñi ñu wuute adduna dong lañ wute kon lañ wute ci àdduna it dañoo war a mën a jéggalante kenn ku nekk jéggal sa morom ci lam gëm yow nga gëm li nga gëm ngeen doxal doxal yi nga xam ne yéen a bokk réew mi boo liggéey ki si biir da ngeen di àndaat ku gis gàmm gi ni mu demee rek nga xam ne loolu lu mën a nekk la ndax boo demee ci gàmm gii boo dikkee Touba yi ñu ngi leen di bu baax di leen dañuy jàppante di joxante loxo euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi mu wéral ko barakati xaadim rasul comme ñu fas yéene leen fàttali rek ni nga xam ne ni la ñuy fas yéene dundale guddi gi ci programme bi gis ngeen ñi nga xam ne moo ki nga xam ne mooy jiite njàng mi di sëriñ Ahmadou Badawi mu Cheikh Mouhamadul Fadal di ko ànd ak sëriñ bu Bousso ak sëriñ Abibullahi Jatara su ko defee kon niñ koy doxale mooy suñ jàngee buntu barsan jiyu kuréelu jës bu dana jël bu noppee kuréelu muwaay bu noppee muxaddimaat kenn ku ne ci ñoom dana jàng fukki bayit ak ñaar noonu lay fas yéenee doxe incha allah am na waxtu woo xam ne nag buñ ca àggee sëriñ bi dafa digle ne suñ ci àggee ne ñëpp jóg ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa mooy waxtu bi nga xam ne borom barsan ci lay nettali ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi gane àddina incha allah suñ ci àggee ñëpp jóg taxaw ngir màggal yonente bi su ko defee noonu lañ koy fas yéenee doxale mu ànd nag ak njàngoom alquran ak xasida ak euh, képp koo xam ne daal yor nga sa kurus nga wala nga mën a wax dara nga di ko def te suñ dee wax atrilahuma xabrahul karim bi harfin sasin min salatin wa taslim képp kuy góor boo mënee aw yëkkati sa baat ca kaw nga def ko jigéen ñi mën nañoo yelu waaye ñun ñëpp ñu teewlu rek te yéene te kenn ku nekk yeesal sa pas-pas te sellal te sunu borom nangul ñu bi barakati xaadim rasul kon su ko defee ñu fas yéene tàmbali liggéey bi. auzu billaahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi allazi iftataha hada alwujuda bi nuuri lmuhammadiyi assaari fi kulli xadiyatin wa jaala bi buruzi daatihi ixtitaamahu wa intihaa wa xassa ahlahu alfaaxira wa naslahu altaahira bil asraari alilahiya fa kaanoo xisnan xasinan li ahli al ardi wa liddiini ximaa wasalaatu wasalaamu ala xayril bariya wa ala alihi wa asxaabihi wa ataabi wa atbaacihi wa man wala wa baado fa yaqulu alcaarifu allazi xaaza min alfadaili kulla mixnatin saniya wa taxalla bi cilmi aldaahiri walbaatini wa saara daydanahu wa gaayata marmaa ذو النسب الطاهر الذي يحبه في القيامة منج من النار المحمية مولانا السيد جعفر بن حسن من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده ساغية ساقية ساقية هنية ممتطي ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرل الكريمة والجباه wa astamnixu llaha taala ridwanan yaxusu ladrata altahirata annabawiya wa yacumu alsaxabata walatbaa wa man wala wa astagdihi hidayatan lisuluki subuli alwadixati aljaliya wa xifdan min algawaayati fi xitati alxatai xataaya عطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم الكريم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa sallim wa barik alayhi allahumma salli wa وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه كون أولياء بين على الكتاب المستبين Yàlla صفاته الحقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهيرية وقصها وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه صلى الله عليه وسلم ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهو بنسيم صباه wa kusiyat al ardu bi tuuli jadbiha min annabaati xulalan sundusiya wa aynaat althimaaru wa adna alshajaru liljaani janaa wa nataqat bixamlihi kullu daabbatin li qurayshin bifisaaxi alalsuni alcarabiya wa xarrat alasiratu walasnaam ala alwujuhi walafwaah wa tabaasharat wuxuushu almashaariqi walmagaaribi wa dawaabuha albahriya wa axtasat alcawaalimu min alsuruuri ka asa xumayaa وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسلم فسميه إذا ودعتيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أم أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجرانية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم في سبيل صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شثي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شثي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم يعرف الشدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سلمان حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية آسية رضي الله عنها ومريم رضي الله عنها في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه na ñëpp jóg màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam السلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا قائد الغرب المحجلين صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من سبح الحصى في يده وحل صلى الله عليه وسلم وحل الجزع إليه sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alayka yaa man ballagta ar-risaala sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alayka yaa man addayta al-amaana sallallahu alayhi وسلم السلام عليك يا من نصحت الأمة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من كشفت الغمة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من أقمت الحجة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من أوضحت المحجة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من جاهدت في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وصحابتك أجمعين صلى الله عليه وسلم السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين الكريم صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خيرة الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا صفوة الله صلى الله عليه وسلم وسلم السلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا هادي الأمة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا بشير يا نذير يا ظهير يا ظاهر صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ماحي يا عاقب يا رؤوف يا رحيم يا حاشر صلى الله عليه عليه وسلم السلام عليك يا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها الهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم وسلم السلام عليك يا من وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وبقوله عز وجل بالقائل بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا زين الأنبياء صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أتقى الأتقياء صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أصفى الأصفياء صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أزكى الأزكياء صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا طه يا ممجد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا كهفا ومقصد صلى الله عليه السلام عليك يا حسنا تفرد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ماحي الذنوب صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا جالي الكروب صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ضوء البصائر صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا بحر الذخائر صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها المشفع في القيامة صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها المظلل بالغمامة صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها المتوجه بالكرامة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خلاصة التهامة صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أسفل الصفات صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ذا الموهبات صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ركن الصلاح صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا داعي الفلاح صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نور الصباح صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رب السماح صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا خير الخلاق الخلائق صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أفضل الناطق